actu du jour ñu jukki leen li gën a fës ci biir euh, internet bi dañu koy doore rek affaire Ousmane euh, Sonko ñu gis ki nga xamante ni moo di Birame euh, Souleye Diop nekk responsable politique ci parti Pastef bu président Ousmane Sonko ñu gis ni rek kii di Ousmane Sonko jamono ji rek dañu ko daal di tuumal mu di coow rëy di viol ak menace de mort daal di tukkee rek ci ndaw si di Adji Sarr di ab masseuse ñu gis ne nag démb ci altine ji soxna Prince Birame Souleye Diop ji rek dañ ko daal di rek teg loxo ba ma nga ca division des investigations criminelles ci ab plainte rek bu bàyyeekoo ca Mahmoud Saleh di directeur de cabinet du président Macky Sall teyit nekk ministre d'État moo daal di rek porter plainte rek contre Patricia Mariam Gandoul ginnaaw rek ci ay xibaar yu tukkee rek ci ëttu yëglekaay bi di E-Media soxna Birame Souleye Diop ji rek moom la ñu daal di wax ne dafa benn puce boo xam ne dafa am ay message yu menace de mort daal jëm rek ci Mahmoud euh, Saleh euh, nekk rek ministre euh, d'État ginnaaw loole rek Mahmoud Saleh si la daal di jubale rek ca police ngir daal leen di xamal lu ni ci noone noonee rek police daal di def lu ñuy tuppee réquisition ca Sonatel ginnaaw loolee rek ci la ñu daal di am ay preuve ngir xam ne ne puce boobule kii di Mariam Gandul moo ko daal di yore ci noonee rek la ko daal teg teg eh, loxo moom ak eh, Abbas Fall nekk coordinateur du Pastef eh, bu Ndakaaru ils sont placés en garde à vue jamono ji rek ñuy wax ak yéen ba tey rek buñ sukkandikoo ci ëttu yëglekaay bi daal dinay xam le ne lu tollook cinquante rek plainte daal dinañ koy rek jot rek jamono ji rek ca police ginnaaw coowul suite booti bi rek daal di juddu mu di viol ak menace de mort jëm ci leaderu Pastef bi lee di Ousmane Sonko mu di cinquante plainte yoo xamante rek autorité yi ñoo ko daal rek déposé rek ca police ngir ay menace de mort ak ay audio ak ay appel yu doy waar rek yoo xamante ni bii ñu ngi koy jot rek euh, jamono jii yeneen ne arrestation dina juddam euh, déet loolu ab laaj la lépp loo xamante ni rek fasaat na ci rek ci bile mbir dañ leen ko digtal euh, ci suñ yeneen jotaayu xibaar waaye ñu jàpp rek kii di Abbas Sall ak Patricia Mariam Gandoul daal nañ leen di teg loxo rek jamono jii ñuy wax ak yéen ba tey rek ci mbiru Ousmane Sonko la ñuy daal di desandi gis nañ ki nga xamante ni rek moo di présidente directrice générale de la chaine de télévision 7 TV mu di may Maimouna Ndour rek jamono ji nee na mi ngi jot rek ay menaces de more daal di koy duppee rek ca page Facebook am benn étudiant rek bu nekk tamit membre parti Pastef bile moo daal di rek bind rek ne may Maimouna seytaane bu mag la te tey it day joué li nga xamante ni rek moo di carte nekk na femme boo xamante ni rek dafa dangereuse lool dañ ko war a daal di dóor rek ba ko moom rek étudiant bi moo daal di xamle li ni mel ba tax rek Maimouna Ndour daal di génn rek ngir xamal ko ne ko moom liggéeyam rek lay def jamono ji nekkul procureur nekkul justice lu dul lekk liggéeyam lay def jamono ji moom may Maimouna Ndour rek moo daal di xamle li ni ginnaaw rek étudiant boobee nga xamante ni nëbbul benn yoon identité am foofee rek ca Facebook am ba tey rek uh, ci mbiru Ousmane Sonko la ñuy daal di desen yi gis nañ ki nga xamante ni rek uh, moo di Cheikh uh, Bara Dolly daal dinañ xamle ne kii di Ousmane Sonko bu wéyaloon rek conseil yi nga xamante ni rek maître Abdoulaye Wade daal dina koy joxoon ngir rek mu def attention bu baax a baax ci fi muy teg tànkam wala lu muy lekk mu nekkoon rek ay conseil yoo xamante ni bii rek kii di maître Wade joxoon na ko kii di Ousmane Sonko ngir mu def rek li ba xamaloon ko ne bu fekk fekkoon sax dafay dem ay voyage bu doon ànd ak soxnaam sax dana nekk li gën kii di Ousmane Sonko moom lañu daal di waxoon li ni mel ba tax rek Cheikh Bara Dolly daal di xamle ne kii di Ousmane Sonko bu defoon di ko maître Wade def rek lii nga xamante ni rek mi ngi koy dund jamono jii du mas a ñëw rek ci moom. ñu àddu euh, ci leneen wax ci benn disparition benn enseignant bu nekkee foofee euh, ca Médina euh, Yoro Fula ñoom nag jamono ji rek njàqare la ñuy dund depuis mercredi 10 février ba ba léegi gisuñu rek enseignant bi di euh, monsieur Ndiaye ba tax rek ñoom askan wa ña ngay ñaan rek état wu Sénégal mu def ci kem kàttanam rek ba seen collègue bi rek daa di mën a feeñ ndax ñoom jamono ji rek daal di nañuy euh, jaaxle lool ñu xamle rek li ni mel moo di enseignant ya nekkee rek foofee ca village u euh, Saare Moussaël bokk rek ci commune rurale euh, bu Bodian dëkk nekkee rek ci departement Médina Yoro Fula rek foofee ca région wu euh, Kolda ñoom daal ñi ngi ñaan ndimbal rek ngir rek seen mbokku enseignant bi rek réer depuis mercredi 10 février ba léegi si ñuy wax a yéen ñoom nee nañ gisuñu benn signe bu leen di xamal ne mi ngi dund wala rek moom mi ngi faatu ñu woyandi rek euh, wax ci ki nga xamante ni moo di enseignant président de la fédération sénégalaise nekk démb rek euh, ci altine ji moom Baba Tandian rek dafa doon jën ci li nga xamante ni rek moo di euh, soxna foofe rek ca mosquée Soninké sur l'avenue Malick si Baba Tandian nag dafa daal di amee njàqare ginnaaw rek ba ñu daal di jëlee rek li nga xamante ni moo di mille cinq cent euros mi ngi tolloog un million de francs CFA ak benn téléphone am buñ sukkandikoo rek ci ëttu yëgle yéenekaay bi di Les Échos moom Baba Tandian moom nee na dafa jaaxle ndaxte lu ci mel ne ay armel rek ku dem rek di sàcc ak lu ni moom daf koy daal di jaaxalool te nee na moom jamono ji rek mi wax ak yéen soxla na lool lool lool téléphone am bi ndaxte nee na amutul benn appel boo xamante ni rek nit ñi mën nañ koo jot jamono ji ginnaaw rek biñ ko defee boobule euh, jëf rek ca ba muy jën ci euh, soxnaam ñu wéyandi ba tey rek ci beneen ñaawteef bu ñu nemmeeku rek ca diwaanu euh, Touba euh, benn marchand ambulant moo daal di rek euh, daal di jam benn apprenti chauffeur lam ko jamee rek moo di benn bouteille verre moom la daal di rek toj daal di koy jam apprenti bi ba mu jëlee ca nag ay gaañu gaañu yu méttee métti ba médecin ba sax doon ko rawalee moo ko daal di bindal rek benn certificat médical bu 15 jours de travail ci noonee rek lañu ñu daal di jël kii di. marchand ambulant bi ay atam toll uh, ci fanweeri at ci noonee rek lañu ko daal di uh, déféré ca police bu Touba atte nañ ko nag ca tribunalu Mbàkke ba daal di koy condamné lu toll ko ñetti weer rek loo xamante ni war na koo daal di uh, tëdd lañu ko daal di tegee loxo rek mu di coup ak blessure volontaire boo xamante ni rek def na ko ci benn apprenti chauffeur ba jamono ji rek ñuy wax ak yéen nag marchand ambulant bi ma nga ca maison d'arrêt de correction bu euh, Mbàkke fa la daal di naree rek daal di tëddee ñetti weer yi nga xamante ni rek yoon rek daal di na ko koy teg rek jëm ci jeune apprenti chauffeur bi nga xamante ni bii rek def na ko lu ñaaw lile. dañu koy daal di jeexaleek Bijou Ndiaye mu nekk animatrice rek foofee uh, ca TFM ginnaaw rek ba mu daal di génnee ngir xam ne ne képp koo xamante ni bii rek violé waat nañ la dawal gaaw dem police avant ngay sangu ndax police rek mën a am ay preuve ngir xam ne ne yow rek daal dañ lay uh, violé mu nekk nag ay kàddu yoo xamante ni bii rek internet yi rafetlu wuñ ko uh, benn yoon ñu di ko ñaawlu rek ci commentaire yi rek mu di kàddu yooyu nga xamante ni bii rek kii di Bijou Ndiaye daal na koy yëkkati rek jëm ci ci kaawu viol ak menace de mort bi nga xamante ni rek jamono ji rek ñu ngi koy gën a waxtaane ci réseaux sociaux yi mu jugee rek ci aji Sarr daal di jëm rek ci ki nga xamante ni rek moo di leaderu Pastef bile di Ousmane Sonko lii rek moo fi gënoon a fës ami internet yi di dajalay doon ba ëllëg ak jàmm